amul am na solo kaay yàgg maar parce que kii defe naa ne lu la neex ci làmb soo ko ko laajee lu mu la ci waxul da koo neex Iba Kane sunu làmb noonu loolu la yàlla dogal loolu yaa ko liggéey. adressé loolu loolu loolu liggéey la. Ah. lu ma wax de yaa ko def. est-ce que est-ce que amateur yi ñun ba ñuy liir sunu làmb ñun boobu xamuñu woon danañ téye micro. de gis ngay bind. te tey la wàllu gën a aay kon fan wi la ñuy ñaan mu gudd wér gi yokk xel mi gën a ñëw di la nuy du nuyu groupe yëpp ñoom suñu xarit Dembélé ak ñi fa nekk ñëpp. waaw di leen ziar di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla yàlla may ñu àggale si weeru koor bi ak jàmm ñu feete korité bu neex ñu sol yére yu rafet jubali stade euh, arène nationale ndax ndax ndax lamb yi bari na mon frère ah ku ren dootoo màndi de ren. nawet bi ah ren dañuy dañuy làmb nawet. ren nawetaanu làmb moo am. ren nawetaanu làmb moo am. kat bu mag woyoon na ko yal na ko. nawetaanu làmb moo am. parce que li ma gis nii vraiment dal na xel. nga am un Balla Gaye 2 bomba Bombardier le 31 juillet. mu fàttaliku ma le 31 juillet bi nga xam ne Balla Gaye 2 si la bëre woon ak Tyson. Gaston Mbengue yor kaan ba. di def ni affaire bi yàlla la. ah loolu bu ko dekkalaate dañ koy sant di ko gërëm lu question lu mu nekk fii lu ñu nekk këram ñëw mais li ne dafa def loo xam ne lu ne fàng lu ne fàng kenn du ko jeex kenn du ko jeex il a du mérite quand am na ñu ma dégg ñuy wax ne combat Gris ak Balla dafa neex senegale yu bëri dañuy wax naan ñoom ñaar dañoo war a bëriwaat. ba tey yàlla dogal nit ñi ñu xëy xëy Gaston indiwaat ko. waaw waa amateurs yi bëgg nañ ko amateurs moom bëgg nañ ko vraiment li ñu njëkkoon wane en 2018 31 mars 2018 ñooñu tëj Léopold ñu def ko guichet fermé je pense que loolu moo tax nit ñi peut-être doyaluñ te nit ñi vraiment Balla Gaye de Gris Bordeaux dafa war a am chute. dafa war a am chute. si nga moom chute. war naa am chute mais li ma jaaxal mooy Gris Bordeaux laa gisagul mbër bu koy daan di xaar photo lu tax loolu mënta ne. ah man de jaaxal na ma man Gris Bordeaux mbër daan ko ba toog ci kawam di xaar photo boo leen amee image bi ngeen dugal ko waa Equivox xam naa ne ay jënd ngeen. yaa ñu fi appui wala nii fa waxuma loolu de. ginnaaw géew ak yow. Ah, waaw non diggu géew nga. ñu duggee ñu toog xaar photo man de gisaguma ko. au Gris Bordeaux au summum de sa forme. gisaguma mbër bu ko mën a daan ba toog si kawam di xaar photo. kon mais nag mu ngi dajeeg jinne jinne làmb ki mën bëre nag ku mën bëre c'est pas pour rien mu nekk le lion de Guédiawaye muy Balla Gaye de ku mën a bëre par parler. amul lu mu deful si làmb bu mu duggee si làmb ba léegi ba 2005 2006 dégg na si lu ne dégg na si roi des arènes dégg na si roi ANPS dégg na si lu ne dégg na si le roi des claf il a tout mooy Balla Gaye 2 mais liñ koy xaar si moom mooy d'abord mu lijjanti problème ak Bombardier Bombardier d'abord parce que loolu c'est un c'est un c'est la bu rëy a rëy dafa war a des arènes dafa ñàgg jé dafa war a jéggi siraat pour mu dugg àjjana mm. day jéggi siraat boobu te mu jéggi Bombardier ah te kooku nee na ko bomb mm. ay bomb xajul si ak gaynde ay bomb dafa xaj ci gaynde déedéet donc mu nekk komba boo xam daf ko jël au sérieux daf ko war a au sérieux sur les plans physique mental mystique parce que Bombardier du ko may dara Bombardier doo dooraat moo ko fi andiwaat de. da ko bëgg yóbbuwaat si saako yi. moo tax combat boobu Balla Gaye 2 bu koy bu koy bu koy jéemal kii mu ngi nax boppam. da ko war a jël au da ko war a jël au sérieux moom pour man amul combat ak Boy Niang 2 de ak ay Gris Bordeaux de moom combat moom ak Bombardier la. bu mu trompé wu ay objectif l' objectif principal c' est baat battre Bombardier d' abord et comment battre Bombardier lutteur bi nga xam ne. néewul doole moo la mag certes mais dafa am expérience te ñeme lu métti moo tax kom la boo xam ne bomb Balla Gaye 2 na jéggi siraat balaa muy wax si waxu Gris Bordeaux wala waxu Balla gay 2 wala Boy Niang euh, euh, maanaam lii du danger ci mbër nga signé ñetti nga euh, nga jël ñetti avance non mbër dugg na claf am ñetti avance Balla dugg na dugg na claf lii du gan ci moom non non lii du ñoom Issa Pouye dugg nañu claf am ñetti avance ñoom Bathie Seras moo ko andi Gaston Mbengue moo fi andi loolu CLAF en 2007 2006 2007 donc mbër bu jëlee ñetti avance dafa mel ni équipe buy jouer championnat rek yoo xam nga ne sa première journée Babacar laay dajal deuxième journée Lamine Seck laay dajal troisième journée Ibakar laay dajal donc loolu championnat mais un sportif doit compétir ça ne sert à rien nga ne mbër nga te doo takk doo doo bëre ji loolu amul sens. nga toog 3 ans bëre woo nga ne bër nga Gris Bordeaux li mu nekkee nii man neexuma. gëj a bëre bi. day rey day rey si écurie bi nga nekk dafa rey Fass Fass dafa manqué un pois lourd boo xam ne tey moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy di bëre. di jëli roi des arènes bi heure bi Gris Bordeaux dafa waroon di xëccoo titre roi des arènes mais il est très loin du titre. daf ko sori te ay atam moo ngi jege si. moom instant bi si dabe la nekk si yoon bu métti la nekk. ay ay combat revanche rek la am te nit ñi tamit vraiment man a commencer par man man dama doyal si ay combat man man tàngal ceeb bi laa doyal non tàngal ceeb laa doyal si ay combat revanche mais man Gris Bordeaux Tapha Tine laa gënoon bëgg waaw. mais a naa mën a ne. parce que Gris na pare pour lekkaat beneen avance. non na jël loolu moo balaa moo man su ma sañoon balaa moo doon bëreeg Balla Gaye 2 bu mu visé il devait lutter d' abord avec un Gris Bordeaux avec un Tapha loolu mooy njarndeem bi lu bees tàq ma loolu laa gën a bëgg waaw waxuma la guerre de raag la lu doy waar donc combat yooyu laa gën a soxla man en tant man Iba Iba Kane man waaw man bu bëgg làmb man un Gris Bordeaux Tapha Tine moo ma gënaloon un Gris Bordeaux Balla Gaye 2 mais promoteur moo yor xaalisam moo yor kompa kopparam mooy xolli ko arrangé mu tëgg ko mais ñun tamit am nañu droit wax sunu xalaat sunu xalaat mooy Ba gri balaa moo doon dajeeg Balla gay la dafa waroon dajeeg un un après mu dajeeg un Ama Baldé après après après après combat revanche yi xaar doo ko xaar mais nag loolu choix wu promoteur bi la du sama choix amateur yi tamit peut-être bëgg nañ ko am na ñu ko bëgg am na ñu ko bëgg parce que fii moom mënoo fi def lu nit d'accord ñëpp d'accordandoo loolu mënul nekk waaw en tout cas loolu laa si amoon lu ma si wax. léegi fi may jeexale ak yow mooy Vox Arena le 9 juin dañu ñëw ak seen combat yi nga xam ne moom lañ tuddee G5 bi. Franc Tyson 2 Mama Lamine Garga ak combat yi aju looy wax ci bis boobu. ah loolu mercredi 9 juin la le mercredi 9 juin. arène nationale ñu andi fa cinq grands combats yoo xam ne rek bu nekk mot na grand combat mais Tyson 2 rek boo leen ko tëggoon pare ngeen si. Tyson 2 Franc njaago bi ak séeréer bi ñaari kal yooyu lébu bi lépp mu boole lépp non Franc actuellement bu jégee Tyson fi boo ñii ko xaar de. bu daanee Tyson 2. bu daanee Tyson si kaw gaay yi jëm de. moom Franc. moom ak rëg-rëg. rëg-rëg bu daanee guy gi Franc daan Tyson 2 nga xam ne ñoom Balla Gaye 2 ñoom Sa Thiès ñoom sen kaw lañ jëm de. mais est-ce que ëppale wuñ leen dara. Hmm. ëppale wuñ leen dara. attention à Franc et à rëg-rëg. na gaay yi def si Franc ak rëg-rëg. moo tax Tyson 2 mu am sas bu rëy sas bi mooy lan mooy mu arrêté Franc. moom bu arrêté wul Franc rek saye Franc day Franc day lakk daay bi. seen ma la bu ko arrêté wul day lakk bi. Tyson 2 bu arrêté wul Franc maa la ko fii sa micro day lakk daay bi. maanaam combat bi bu ci génneeg ndam. bu si génneeg ndam avec la manière day lakk daay bi te Franc buy daan mbër avec la manière toujours la koy daanee Franc. bi day balaa ñoo woor def na ci lu doy waar. soxlawul saxaar bi il est compétitif daanaan kulli fadrin la. mais nan moo ngi dajeeg nag mbër moo xam ne tamit bu mu bu mu naqaree daan nag quand même muy Tyson 2. Elton ak fi moo ko freiné depuis boobu ba léegi moo ngi nekkaat si yoonam. góor a soog daaw gis nga. donc ça di ko que boo xam ne vraiment waa Vox Arena dem ne si remercier di si remercier Maodo Seck sama xarit vraiment def na lu rëy boole si un garga de Mama Lamine boole si un noiro euh, musique ak yeneen ak alliance biram donc maa ngi ñaan yàlla bés boobu. di woo amateur képp ku bëgg làmb na nga déplacé wu jouru alarba la le mercredi 9 juin 2021 arène nationale première sortie Equivox Tyson 2 de Mama Lamine Garga 2 donc loolu njar ndéem la maa ngi siy woo waa senegal yëpp ma ne la bu ñu génnee si weeru koor bi ku màndiwul làmb dootoo màndi ku màndiwul làmb dootoo màndi làmb dinañu tabaski bés boobu le 9 juin mooy tabaski làmb mooy tabaski làmb. noonu la fa demee kontaan merci merci merci jërëjëf merci. réew mi bay suñu wàll jàppale aussi borom réew mi ci liggéey bi muy liggéey parce que réew mi duñ ko rek toog ci bureau wala dem ca tool ya wala nekk ci àll yi làmb ji ci la bokk ak c'est un facteur de développement. yàlla nattoo na ko ñu nekk fi ak suñuy doom war leen organiser pour ñu développer jëmale réew mi it kanam bi ñëpp xam ne ñu ci réew mi ci boo xam ne facteur de développement la réew mi yëpp a ko bëgg ñu ñaan yàlla rek lépp nekk ci jàmm yàgg fa jàmm combat ba ci yàlla defee gën man ko mën nañ ko yóbbu Gàmbi ndax ku ne xam ne diggante Macky Sall ak euh, Adama Barrow ku ne xam ne population gambienne ak am na lu mébét bi daal dañuy ñaan rek yàlla na ko yàlla eggale ban alors giri yooyu yëpp mën naa nekk giri yëpp mën naa nekk yaawu jaal ak keneen mën naa nekk giri boobu Ama Baldé mën naa nekk lépp mën naa nekk mais ci kaw rek ñu d'accord ci kàddu yi jubóo ci kàddu Balla dafa Balla sax Balla tamit sax dafa da nga ne avance jël avance. waaw man la jël avance ba keneen que ça soit Ama Baldé wala keneen d'une façon bu raisonnable rek ñun duñ def lu raisonnable. keneen moo tënk ci ba ñu def lu ñu yëf yi ne ñëpp dellu seen xel xam ni euh, la fi amoon ñu diis yooyu toog naa man juróomi at nekkuma ci làmb ji donc. dix yooyu ku ngëbeen rey sa maam foofu ñuy daw non non non yëpp man xam nga yéen ñëpp ci minute bi ngeen di yëge man kenn xam fu ma du xam fu ma jëm ah, mais léegi dana laaj leen dafa am seer bu bàll def si yow sànq par rapport ak début carrière am eh waaye waxal a nan ñu ngi rek eh, waaw xaaral ñu